sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay bu baax soxna si. Euh, naka la Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye waaw Ousseynou Ndiaye. Ousseynou fan nga jógee ngir ñëw fii la ci Ndakaaru ngir sa wër gu ñàkk am wër gu yaram ci sa jaramu doom bi. maa ngi jógee fii ba Kaffrine waaw Kaffrine laa jógee hmm. sama doom bi nag euh, depuis 2016 la judd am na ñaari rakk kenn ki sax mi ngi jàng mais moom daal ba léegi. moom daal eh, kii bi dafa bañ rek maanaam tànk yi daal dafa bañ waa yaram bi lépp daal eh, yenn saa yi day tëdd guddi di jooy jooy yu métti sax te doo xam lan lan moo ko waral eh, yenn saa yi nag mu xaw a xaw a xeeri tuuti xam nga rek gune bu wérul moom daanaka day bëri ay ay jafe-jafe day naqari deret itam daanaka xat gi lay na mu commencé jooy yàgg na lool si ma wax dëgg yóbbu nañ ko fa waaye daal wax yàlla amaguñ ci maam daal amaguñ ci daal benn moyen boo xam ne wax waa solution wax dëgg yàlla nag bu ñu mënoon a am ku ñu si dimbali it ah wax dëgg yàlla danañ danañ danañ mën a jël daal ndax daal metti na lool xam nga rek jur doom mu mel noo xam ne wax dëgg yàlla <coughs> dëgg li ñuy wax rek neexul ay bokkam ku sañoon boo juree doom mu mel na la neex mel nag jaama pexe yàlla dogalam te comme loolu la yàlla dogal it ah dañuy nangu dogalu yàlla rek waaye nag bu fekkonte ne am nañ ku ñu si mën a dimbali itam ah, ñu jéem koo yóbbu si hôpital yu mag yi parce que am na ay am na hôpital bu ñu wax fii sax Dakar ne ma mën nañ ko faj waaw mais nag lim lim lim moyen yi mu laaj am am waaw mu ko manque de moyen quoi amoo moyen parce que booy xool euh, maa ngi dëkk-dëkk bu ñuy wax Daaru Mbane <coughs> commune bu Njum Gént département Malem Odar euh, foofu laa xëyee maa ngi fa xëyee fajar gis nga heure bi ma agsi fii nii waaw te comme yéen yàlla def nañ ñu dégg leen te ngeen nit ñu baax ñoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ yaakaar si yéen ñu ne nañ ñëw tiis leen suñ soxla bien vrai que ngeen mën ñu ko ngeen mën ñu ko fajal daal su su mën nekk loolu daal moo ñu tax a ñëw waaw. ndax moom mës na dox wala. non moom mësul dox non non. ba mu juddoo ba léegi kon nii la judduwaale woo. waaw toog sax mënu ko kay. Mm, mm, mënul toog mënul toog mënul mënul dox moom daal tëdd rek mbaa tëdd rek mbaa mu toog si si piliyaan waaw. moom moom da yaakaar ne mi ngi toll si huit ans yaakaar naa waaw. tëdd rek lay def. waaw tëdd rek lay def mënu mënul toog mënul wax mënul def dara. d'accord ñoom hôpital lan leen wax ci euh, côté ñàkk wër gu yaramam. waaw ñoom daal bi bi ma fa mujj a bi hôpital bi ma mujj a dem dañ liñ ma xamal daal mooy kii euh, sadit bi daal moo moo moo xaw a moo moo mooy bañ daal sadit bi. waaw sadit bi daal moo bañ. moo tax daal ba yenn mouvement yu bari du ko mën a def mm. waaw léegi nag man. joxoon nañ ma rendez-vous waaye na xam nga booy faj taamu al xaalis tam du dox waaw force nga yor bu ko defee nga mën a nga mën a mën a mën a mën ko dimbale daal waaw mais boo amut moyen doo ko mën a dimbale loolu moo sabab ah ñu indi ko ba fii wax dëgg yàlla si sàkku ndimbal waaw waaye kii nañu loolu wax dëgg gannaaw ba nga demee ci hôpital yi dégg nañ sànq ci say biiri waxtaan tamit nga ne jot nga dem ci ñi nga xamante ni ñooy faj fajum olof maanaam ñi nga xamante ni ñooy faj ay mbir yu ñuul ak yooyu. Mm, waaw waaw waaw jot waaw ay sëriñ waaw waaw am na sëriñ bi nga ko mujj yóbbu de muy sëriñ bu mag a mag si suñ tundee ñu koy wax alaaj taayiru ka siwal wax dëgg yàlla bu ma ko fa yóbboon li ma wax mooy ah dana dana wér de waaye nag danga si sonn trop. waaw loolu la ma wax alaaj Tayiru Ka képp ku dëkk Saalum xam nga ko mu ngi dëkk Siwal waaye li ma wax daal mooy dana dox waaye nag dañ sonn trop waaw ah, na ba ñu sonn l'essentiel <laughs> nañ am moyen bu ko mën a faj rek mbaa ñu am ko ñu mën a dimbale ba mu faju waaye sëriñ boobu moom daf ne eh, mën na ko laaj la xaalis wala daf la ne mënu ko faj hôpital moo ko mën a faj waaw daf ne ma carrément moom moo ko mën a faj waaw moom loolu daf ne moo ko mën a faj waaye nag maanaam du yomb xam naa daal moyen yi may laaj moyen yi mu yi mu expliqué na wala ne moom la moom lay laaj daal xam naa ne man moyen bu amuma ko wax dëgg waaw. ndax da ngaa dem hôpital ñu defal la bilan ci li nga xamante ni moo war a faj xale bi wala defalaguñ la dara. non non defaluñ ma bilan moom wax dëgg yàlla waaw ay moom daal bi ma bi ma bi ma demee hôpital biñ ko xoolee liñ ma wax daal mooy euh, kii euh, mën nañ ko mën nañ ko faj mais nag condition yi ñu ma tegaloon daal. wax dëgg yàlla condition yooyu man man moom laa amut. comme yan condition xam nga xam nga par exemple hôpital boo duggoon sa premier ticket rek daal di day daal nekk 5000 ñu soog la bindal ordonnance waaw léegi nag bu la bindalee ordonnance ordonnance bi dem ci ay 35000 40000 mbaa sax 60000 kooku wax dëgg yàlla boo ko bëggee def ñaari yoon ñetti yoon wax dëgg yàlla doo ko mën waaw daanaka benn yoon daal laa ci jot a dem. bi ma ñëwee yëf yi tar lool wax dëgg yàlla bëgg naa ko nag waaye ñàkk moyen quoi. waaw waaw voilà. mais benn yoon nga ko mos a yóbbu hôpital moom xale waaw non yóbbu naa ko ay yoon yóbbu naa ko a yoon mais euh, comme li ma la wax noonu rek maanaam su ma demee su euh, bi ma ko mujjee yóbbu daal moom moyen boobu moom moom moom waaw waaw moom waaw moyen boobu daal moom moom moom moom laa mënul kii quoi wax dëgg yàlla bañu ma ko nag dama ko amul amoon moom wax dëgg yàlla jaral na ma ko waaw parce moom. xale bi mooy sa taaw. waaw mooy sama taaw waaw. Hmm. d'accord lan lay def ci yow rek tey ki nga xamante ne nii nga nekk boroom kër kii nekk sa taaw nga nekk ki nga xam ne moom nga njëkk a gis ci doom yàlla daal di teg natt bi ci kawam te amoo moyen boo xamante nii mën nga ko fajee sa taaw bii ngir mu mën a delluwaat ci ay yitteem. waaw torop de métti torop de soxna si foo ko natt rek foo ko natt rek weesu na ko parce que xam nga ñun Saalum xamuñ du mooy mbay. Mm, na jot nga dem ci tool yi koo bay loo dundee ñun loolu mooy suñu objectif ah daanaka nag boo xoolee li ngay li ngay dépense si at mi daanaka boo ko boo boo ko amee rek yow si nga si nga yem daanaka wala daanaka doo am yeneen moyen yu kii yi métti na nag trop ndax wax dëgg ku jur doom ku ne soo soñoon ngay ànd ak moom di dem di dem fu ne ndax instant yi ay moromam ñu ngi jàng ba macha allah ñu si bari sax ñu sori nañ loolu si njàng moo xam arab la moo xam moo xam français waaw sori nañ ci lool waaye nag moom ah comme lii la yàlla dogal si moom ah dañuy gëm la dogalu yàlla rek te xam ne jaama pexem yàlla dogalam parce que ku boo juree doom moom mu mel na la neex waaw mais nag comme du suñ suñ du loo ñoo ko sabab ndax lu lu jógee si suñu borom ah dañ ci sant suñu borom rek waaw dañ sant suñu borom rek ah waaw wax dëgg yàlla lu métti la daal waaw lu métti la lool wax dëgg yàlla ndax eh, képp ku képp koo xamante nii yaa ngi am sa yéen ci sa doom bëgg nga mu màgg mel na la neex ko dugal école mu jàng réussir njàngam bu ëllëgee mu dimbale boppam ku ne loolu ngay ñaan. sànq dama dégg ci say biir biiri wax nga ne guddi gi dafay faral di jooy lu bari ndax mën naa xam moom lan lay jooy ndax yaram bi day xel di metti wala tëraay gi muy tëdd du yàgg moo koy sabab. waaw waaw parce que fu mu ne nii yenn saa yi day day day tëdd day tëdd lu yàgg ba nga xam ne doo ko mën a xam doo ko mën a kii xam nga koo xam ne tëdd rek la mën moom kooku moom daanaka doo mën a lu tëral ko yenn saa yi mun yendu si pliant ba ngoon jot itam mooy pliant bi ñu teg noonu yenn saa yi mu yendu si ba ngoon jot xam nga ne loolu daf dafa métti parce que toogaay neexut tëdd yi neexut <laughs> waaw toogaay neexut tëdd yi neexut donc loolu loolu loolu moom wax dëgg yàlla lu lu la wax dëgg yàlla. ci ban nga bëgg askan bi ñoom ñu jàppalee la ko ci sa côté doom waaw moyen buñ ko fajee. waaw wax dëgg yàlla loolu daal man daal képp ko xam ne mën na maa dimbale ba mooy dimbale si moyen bi moo ko fajee man moom moom moom moom ëppal solo man parce que bëgg naa koo faj waaye nag. aw ma moyen. waaw waxaguñ la ñaata ma ko de. de waxaguñ ma ko xam naa da ngay yóbbu hôpital rek daal xool ba xam rek. waaw d'accord hôpital bi ko mën a faj fi la nekk ci Ndakaaru. waaw waxoon nañ ma ko mais nag exact fu mu fan la toll ci Dakar moom xaw ma ko. non dama ko fa mais waxoon nañ ma ne daal ñooñu moom dana danañuy faj ci wàll woowu quoi maanaam ñi nga xam ne ay laago la laago la ñoog yooyu mm-hmm. ñun danañ koy kii quoi dañ koy faj. waaw tey képp ko xamante ni bëgg na la jàppale naka lay def ak fan lay jaar. waaw ku ñu bëgg a jàppale euh, ñu ngi yor Orange Money ñu ngi yor Wave suñu numéro Wave bi ñu ngi nekk 78 495 40 07 495 40 07 Orange Money it moom it loolu la rek Wave la Orange Money la. 495 40 07 78 waaw ku ñu bëgg dimbale daal moom boo ñu jaaree foofu dañu jël waaw boo ñu boo bu fekkente ni am nga moyen boo ñu mën a dimbalee it ba dugal ñu foo xam ne jàpp nga ne fii buñ fi duggee dañ ci gis résultat ci wàllu paj loolu waaw waaw waaw loolu it wax dëgg yàlla yaa ngi ciy woo ñëpp ko ko xamante ni yaa ngi seetaan vidéo bi que muy ko xamante ni mën na leen a jàppale ci xaalis que ko xamante ni mën na leen a jàppale ci affaire u ñaan aussi. Mm-hmm. waaw waaw képp daal koo ne mën nañu jàppale si affaire ñaan affaire euh, hôpital képp koo xam ne yaa ngi ciy yëngu te nga mën ñoo dimbale wax dëgg yàlla ñun daal xeebuñ kenn waaw sëriñ seeg hôpital seeg comme mën a doon daal xeebuñ kenn képp lépp lu ñu waaye mën a dimbale daal te yàlla tax ñu ñu ngi koy sàkku waaw ñu ngi ko sàkk bu baax a baax a baax.